soo ci amee responsable dañ lay topp amul amul mm-hmm. eh, loolu bokk ci haute trahison soo dee da nga def yoo xam ne bakkan doomu adama nga jël wala nga bokk ñu joxe ay ordre ñu jël bakkan doomu adama wala ñu mm-hmm. torture doomu adama mm-hmm. même soo nekkee président lay topp kon loi d'amnistie lu ñu visé mooy fexe be évidemment ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon jàppale ci répression bi mu protéger leen eh, comme ça moom soo demee kenn bañ leen topp loolu rek la parce que mbir mi du affaire dalal réew mi su dee dalal réew mi la ni ma ko waxee rek rek ci élément bi am na ay matuwaay yoo xam ne procureur mun na ko jël pour libérer ces détenus là. moom moom la def am na yeneen moyens yu ñu mën a jël. pour ah mais oui ah oui dul amnistie mais absolument mhm. ñi fi génn yëpp ñoom Aliou Sané ak ñeneen ak ñeneen. Eh, naa génn mais absolument Ousmane Sonko tey mën nañu ko entendre ko sur le fond dama ñu bàyyi ko mu dem këram. Hmm. mu wan Branco naka lañ ko bàyyee. Hmm. mais wan Branco mais en l' espace de 24 heures. Hmm. lañ ko téye. def ko mandat de dépôt woo ko entendre ko élection yi dugal ci am mu dem. Mhm. donc lolu amna mu ne entente Ousmane Sonko dans le fond suba ñu libérer ko mu dem. Mhm. Bassirou Bassirou Diomaye non. noonu. Mhm. kon soxla ñu loi d'amnistie pour libérer len té il faut que Sénégalais comprendre. lu mu djublu ci loi d'amnistie bi du ay élection inclusive parce que loi d'amnistie bi war n'est-ce pas du jël en charge délit bi nga xam ne mooy délit de diffamation. Ousmane Sonko lan moo tax ñu éliminé ko ci élection présidentielle. diffamation du affaire Adji Sarr affaire de formation la bu Mamba Niang. kon génn ko war naa mën a nekk lu yomb dañ ko accéléré. Mhm. ñoom nee nañu loolu du bokk ci loi d'amnistie bi affaire mhm. privée la. alors ñëpp andi affaire privée. Mhm. Ousmane Sonko bi mu waxee kàddu yooyu dafa nekkoon ci benn conférence de presse les leader politique. muy répondre ci benn euh, ministre boo xam mais daf ko doon teg tuuma bu nekk. wax ko wax ko kàddu bu ñaaw bu nekk. n'est-ce pas kon nécessairement loolu war na mën a bokk ci loi d'amnistie waaye Macky fas yéenewul n'est-ce pas. Euh, am Ousmane Sonko comme candidat à l'élection présidentielle. kon seen loi d'amnistie du délit diffamation du ci bokk. donc condamnation bu Ousmane Sonko à six mois de prison avec sursis d'une continuer de Ousmane Sonko du bokk ci élection yi di ñëw. Euh, ci article 67 di xët yi nga xam ne moom moo ko joxe sañ-sañ dem ci loolu xoolaat suñuy texte ba mën koo méngale parce que bu ñu xoolee amnistie ñu ci ëpp bu génnee rek dañuy dal ci kaw amnistie ne waruñoo amnistie waruñoo effacer waruñoo nangam euh, naka nga war a jàpp ne war nañ ko war a mën a doxalee. amnistie war na mun a am. Mhm. par exemple euh, am na am na plusieurs scénarios. Mhm. par exemple mun nañu rendre justice. Mhm. yoon su defee liggéeyam ba pare. n'est-ce pas su dee am na euh, président su dee yoon def na liggéeyam ba pare mu xalaat ne war na mun a ramener waat dans le jeu politique des personnes. Mhm. wala boog jégal ay personnes mun na yóbbu assemblée nationaliste. Mhm. benn loi ñu voté ko am li si nit ñi. Mhm. waaye day fekkee justice am na bi pare. wala boog comme cas li xewoon Gambie. xam nga am na comité vérité et réconciliation moom ba tey xamaguñu. amoon na amoon na commission vérité et réconciliation. foofu ñi defoon ñaaw teef yi dañu dañoo toog ne man li ak lii ak lii maa def. n'est-ce pas ñi nga xam ne ñoom lay lor tamit. rey seen mbokk ñoo toog wax seen naxar ñëpp xam kan moo def ak kan moo deful n'est-ce pas ñu d'accord mhm. ci ay indemnisation ay ndàmpaay ñu war a jox ñi nga xam ne leen lor mhm. mais foofu mën na def loi d'amnistie pourtant boo xool grâce sax taxul sax loolu loolu Gambie taxul sax ñu wax loi d'amnistie parce que ba léegi nguur Gambie mu ngi mettre en place benn tribunal pour atte Yaya Jammeh ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon dafay ñawte booy xool grâce sax pourtant dañuy xaar ba procédure bi fini président doo ko jégal ni muy jégal mais absolument <laughs> absolument mais non la war a nekk munoo munoo amnistie ko koo mais kan moo def ak kan moo deful mhm. nga bëgg amnistie lolu moy déni de justice manam, nit ki dañuy rey mbokam mu dem porter plainte nga jël loi d'amnistie nga ne ko yow to porter plainte mhm. to xam kan mo ray sa mbokk vraiment nous sommes vraiment décidés. Hmm. à faire tout ce qui est nécessaire pour attaquer cette loi là. Hmm. Nous sommes ak député yi nga hmm. n'est-ce pas mais absolument parce que nous avons saisir constitutionnelle député rek ñoko mëna def je pense que euh, il faut un dixième des députés à l'Assemblée mm-hmm. ñi leen contacter yéen yéen dem saisir députés absolument nañu waxtaan ak ñom ñoom Guy Marius Sagna ak ak ñi ci mm-hmm. nek mm-hmm. n'est-ce pas fexe ni mettre à leur disposition y compris waa parce que Khalifa Sall nee na moom d'accord ci loi d'amnistie il nee na moom d'accord ci donc am un dixième des députés pour saisir conseil constitutionnel yomb na ni fexe ba ñu mettre à leur disposition ay avocats yu xarañ yo xamné ni ñi def recours pour ñu annuler cette loi là parce que loi qui, qui, qui, qui, constitue un déni en la justice mm-hmm. pour les, les, victimes et leurs familles. Nous faisons tamit des recours qui comment ça au niveau de la cour de la CDA on continue mm-hmm. ak yi nga def au niveau des Nations Unies mu mën a tamit. Mm-hmm. Amna na solo euh, laaj bu mujju moy société civile bi nañ ne euh, yang koy wax sank sa biir wax Macky Sall toroxal na nangam toroxal na nangam mais société civile aussi dañu sentir ben moment bo xamné aussi dañu mel ne ñu xaw a euh, wéet seen xeex wala boog dañu dañ leen déggul fenn lu waral lu mel. waaw mais je pense que soo seetee bu baax. Euh, oh, diggante juin ak juillet bi août mais Macky Sall fexoon na be fi daanaka kuje amatul ci biir Sénégal. Mm. amatul ñoo ñoo doon yëkk seen baat di wax ba société civile. Mm. ñu rek ñu fi doon de de nekk di wax. Mm. parti politique yi mënuñu woon sa réunir.

vraiment dafa meloon opposition amatul ci biir. am na solo jërëjëf amoon nañu te dalal la ñu ngi lay jaajëfal baax euh, président Sidi sama jërëjëf di ngeen ko am ci kanam tuuti ci kàllamay tubaab ak ki nga xam te moom moo di Houreye Fall Diouf euh, ci euh, xibaar yi wala boog ci la bonne heure maanaam waxtu bu baax wi di 19h dëgmal kon ci kanam mbokk yi jaa ngeen jëf bu leen toxal seetaan bu soobee sunu borom ci toog gi ci kanam tuuti Houreye Fall Diouf mooy ki ma fi wutu ànd ak yéen maa ngi ko bàyyi maquillage ma ngay càpp cappal ak a jekk jekkal mbokk yi ci kanam tuuti. Mesdames et messieurs, la bonne heure se poursuit avec la version française de l'actualité de ce mardi 27 février 2024. Les titres. La ville bouge en cette journée déclarée ville morte par la plateforme Ars